bis bi nag di bisu borom Daaru mooti ak Serigne Touba euh, wax naa keroog ci CDD bi ma ne leen naka jekk ku fi nekkal Serigne Touba rek ki fi nekkal borom Daaru Muxti daf la yëgal ne la ñi ngi réunion réunion bi nga xam ne moo jëm ci màggalug Daaru Muxti noonu la ñu ko defee ak Serigne Mountakha ren jile ci ci CDD bi ak ci CRD bi yëpp ndax fii moom li fi nekk mooy ndigal moo fiy wéy Daaru Muxti ndigal moo ko sos ñi fi nekk ci ndigal la ñuy wéy njaboot gi benn baat la ñu am Serigne Abbas moo ko yor kon loolu mooy li nga xam ne waxtu wu nekk bu ñu fi teewee war nañ ko yeesalaat ci boppi nit ñi mu nekk bis boo xam ne bii euh, fii lañ koy defee ci Daaru Muxti waaye yoonu murit yëpp a ko bokk. nag dañuy ñaan yàlla sunu borom nu am ci ngërëm. te màggal gii mu nekk màggal goo xam ne euh, lépp loo xam ne luy lor la suñu borom teggil na ko mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ñu ñëw ci jàmm te dellu ci jàmm ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk si itam mu may nu jàmm joo xam ne danañ mën a dalal gan ñi nga xam ne ñooy ñëw te kenn ku ci nekk itam sa xol nga ubbi ko te xam ne gan ci xar kanam lay tàmbalee bége yëg ne wàcc na foo xam ne moo këram moo këram ñoo yem ci moom loolu bu ñu ko defee rek ni ko sëriñ bi bëggee yaakaar naa ne euh, màggal gu màggal gu mucc ayib lay doon te bu ñu nattee lu mukk itam ne ni màggal gi àgg na léegi foo xam ne fii euh, rëyaay bi neexatu la neexatu la àpp kon nag nañ ko bàyyi xel ci wet yëpp moo tax jataay bii am ci wàll yëpp nga xam ne luy tax mu mën a mu mën a jag ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom euh, borom borom daarul muuti liggéey bi mu liggéeyal Serigne ba ba keroog bi mu dajeeg moom mu xamal ko ne ko euh, ndax yow soo demoon man ma des fi da ko doon da ko doon dolli ngóora booba ne ko ndax soo demoon ma des fi dina dina dinaa ko mane nii loolu aw xeetu soññeen la waxan da ko ko soññ te wan ne ko euh, gërëm na ko